Siteu moo nekk noonu Siteu moo moo yëg si noonu toog ci ginnaaw tamit di sol ay dàllam xaa tàkku ne la defoon Cheikh Omar <laughs> tarkindaay ah waay tarkindaa baa noonu borom jos doo cent franc ay waay waay <laughs> xoola maama Lamine Cheikh Omar xoola maama Lamine eh, ndeysaan tarkindaa yaa noonu <laughs> ndeysaan xool borom jos doo cent franc ndeysaan borom àllu paaya tey lu tey lu Siteu indi naar Siteu lan la war a indi man li mu war a indi kenn xamu ko man de xamaguma ko waaye xam naa ne combat bu bees bu ci ne ak la mu indi tarkindaa la daraja yàlla tarkindaa la gun ak janwaar la janwaar la dëkk mu ngi

ndeysaan déggal Fatma Dia wulli ndeysaan le promoteur yi ngi wax ak moom noonu Pape Abdou Fall di wax ni mu ko bëggee moom ko ne xam na ni c'est un homme euh, averti waaye it ku pare la Siteu daa kaalawu Cheikh Omar Siteu daa xoolal Siteu nii muy cal calee Siteu lan mooy problème am déggoon naa fi àllu paya déggoon naa fi jox doo cent franc Siteu tey lu muy indi ay ref ne mege séeréer o refo tim in okki na pogum Mama Lamine in okki na pogum Mama Lamine in okki na pogum séeréer o refo dara ja yalla séeréer la <laughs> Mama Lamine looy ree Mama Lamine da ngaa kontaan xoolal Siteu nii muy cëpp cëppee le site Regarde-moi, le visage de le Regarde Siteu. Papa ça il y a un problème. Il y a un problème. Lamine combat bi koy lañ koy il est concentré Abou Ndiassé lu leen lan la lan un problème Siteu lu muy Cheikh Omar xoola Siteu mu ngi ne pat moom ba tey waxul lu tax waxul Cheikh Omar Mama Lamine Siteu lu tax waxul lan la Mama Lamine pourquoi ngeen jëlee combat bi au sérieux